encore une fois ñun ñoo war a seetaat ñun ñu ni ay homme politique lañu ay njiit lañu bëgg a doon nañu seetaat suñu taxawaay sànq avant bi donc boobu la maa ngi toog fii Imam Dramé xam ngeen ko yéen hmm. de de de Pastef nous parlons tous les jours nous naka la ñuy def pour jàmm am ci réew ba léegi fi ñu toog ni mi ngi naan maa ngi lay suivre de ma ne ko tey di parce que Pecos la Pecos laa koy tooñ di ko di ko woy Pecos quand il il faut ñu toog waxtaan ma ne ko mois je suis prêt dem seeti président bi ko nañu waxtaan mais dama bëgg nga wax ma kan waxtaan ak lu ñuy waxtaan c'est ça qui important il me dit Macky Sall. ah Imam Dramé a demandé ngeen toog waxtaan. mais bien sûr il ne cache pas. mu ni ma da fexeel ba Macky Sall mu ni ma Macky Sall ma ne ko kan ak kanay toog mu ni ma Macky Sall ak Ousmane Sonko ma ne ko d'accord lan la ñuy waxtaanee xam nga Sénégal dañoo tension politique tension politique amul fii c'est ça la vérité. y' a pas de tension politique ñun dund nañu ay tension politique non attends attends rek non bay ma tuuti rek dund nañu ay tension politique dañ daan dem ci élection du ñu d'accord ci code électoral dañ daan dem élection ñu fichier bi baaxul ak yeneen ak yeneen ak yeneen identification de l' électeur ça a man mi wax ak yow identification de yóbbu na ma kaso ça c' était des tensions mais ce qui se passe aujourd'hui c'est des dossiers judiciaires qu'on a alors quand Imam Dramé nañu waxtaan ma ne ko kan ak kan mun ma Ousmane Sonko ak ak Macky Sall ma ne ko lu ñuy waxtaanee bu ñu toogee parce que gisuma problème politique mm-hmm. ilma m'a parlé du dossier de Adji Sarr et de Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ma ne ko déjà yéen da ngeen li wolof naan weñ ngaa nga bañee ca mànjaxaar mm-hmm. bu problème jógee Macky Sall mi yëgul fekkewul yoonam nekku ci ngeen taxaw ni moo leen di complot tey bu ngeen bëggee waxtaan ci ak moom du ci wax ban pouvoir la am ba fekk Amadou Diouf porté plainte contre Maïmouna Ndour Faye mu ni Amadou Diouf dindil sa plainte amul ci benn pouvoir donc encore une fois uh-huh. ñun ñoo war a sàmm suñu taxawaay sàmm suñu doxalin xam ni réew mi ñoo ko bokk kenn gënu fi kenn kenn ëppalu fi kenn dara est-ce que nit ku ñu jàpp fekk ay cocktail molotov vous me direz que détenu politique la du détenu politique c'est un